Mamadou Diop Thioune euh, bu Green Marine ñu ngi lay nuyu. maa ngi fay. may fàttali ne yaa ngi bokk tamit ci conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale fii ci Sénégal ñu wax tey euh, ci li nga xam ne mooy euh, coow li lëmbee ci géej gi. Euh, voilà di porte parole bi ministre bi génn na daal di weddi li nga xam ne ONG Greenpeace ak yeneen organisation nekk ci géej gi waxoon tey ñu bëggoon xam yéen seen position ci coow li nga xam ne nee nañu am na ay navire yu nekk fii di exploiter suñuy ressources te pourtant amuñu transparence ci licence yi nan lañ leen ko joxe. waaw pour que sénégalais yi comprendre li nga xam ne mooy wax ji. xam ne caq day am digg ñaar ñaam tudd nañu rapport Greenpeace. rapport Greenpeace nag Greenpeace moo def rapport mais bi nga ne am na organisation dañuy wax ne. Mhm. organisation professionnelle yi ak Greenpeace ak waa organisation industrielle yi. Mhm. déggee nañu ñu nemmeeku ne ci gis-gis ak li ñu téye ne dafa am yooyu ñu sàkku ci géej gi lu jaarul yoon. Mhm. wax ne ay bateau ngi ci géej gi gis nañ ne yoruñu ay kayit yu jawaar. coow li tàmbali ministre bi ne leen jaxew moom euh, licence. ñu ne ministre bi dañoo renouvelé. loolu mu ngi ñuy delloo ne bu fekkee ministère renouvelé dañuy xool licence bi jaaroon kan moo ko joxe ak nu mu ko joxe fan la ko joxe woon fekkee de si mooy bu fekkee ne ñoom jël ak sénégalais comme sénégalais comme man comme yow di demandé même bu yoree bateau mongol dañu xool procédure ba parce que bu ñu jox moom lañ koy jox waaye dugg ko mongol est ce que ko joxe am na amul loolu dañu bàyyi état bi xëcc ci mu toog taabal ñëpp toog di pencoo lañ daan pencoo xam ku ñu jox ku ñu joxul am nañ ko joxe. Mhm. Uh-huh. ñu jëlee wax ji ko topp ba ñu jëmee duñ ko am résultat te bu ne problème na waggaale yu ko dañu toogaat woon bay bind ne lii du mhm. a dem sàkk li ñu waxoon am na lu ca tegee ku ñu lay demee ñu lay demee. kon yow jàpp nga ne wax uh-huh. ay wax nga am. Uh-huh. dooma boo ne diw amul doo ne diw am na waaye yow xam li am ak li amul boo dee kilifa yi nga xam ne da ngay oote da ngay dem pencoo fañ koy pencoo wax doo dina ko waxi tari waaye dafa jekk Sénégal yi xam dafa jekk organisation yi ñu wax war a wax waaye dafa jekk ñu ministre bi nga xam ne mooy kilifa gi ñu bàyyi koog wàccuwaayam ñu ñëw oote li nga xam ne mooy penc li ñu waxtaan yi ñëpp da jafa kon daal jàpp nga ne coow li warul am ñàkk waxtaan moo fi ne waaw xam nga man mii wax nii. Mhm. may dëkk ci yaakaar naa ne euh, kenn waxtu ñaar fukki at ak juróom te wax naa ñaar fukki at ak juróom. Mhm. bokkaat ci waxi ren yi. moo mhm. wax ne ngoon bu wax rek ko doon fay fayu na. mais jàpp naa ne dañu toll ci jamono boo xam ne bu nekk nii li ñu topp ci ay mbas topp ci ay jafe-jafe ñu tiit ne ñun du ñu nekk ëllëg suñu mbaal du am ragal nañu ne wax dëgg yàlla toog ak géncoo moo ñuy dimbali. moo tax ñu defoon ay toogaay jël ay mool dugal leen ci biir dogal yi jox leen ay CLPA jël KDP si jox ko mool yi li ñu ko defoon ba jox leen que ñëpp nañu dajawaat hmm. ñu dajawaat boo xam ne nañu defoon ne du am ñu ne du am du am buy am mu am ci anam bu leer anam bu dëggu anam bu jaar ci yoon waa tey ba tey xamuñu lan moo si seen position ndax li ñuy coow yëpp coow li yëpp naviir yooyu dëgg dëgg ñoo ngi fii navire euh, chinois yi position mooy xeex hmm. kuy àtte xeex ci digg ba ngay taxaw jubale ñuy xeex waa navire yooyu ndax ñoo ngi fii ndax ñoo ngi Sénégal Sénégal gagné Sénégal ndam Sénégal mucc muccale jën wa nekk ba ñëpp jëriñ ñoo ko ñu xam ne ñoo ko moom koy laal lu laalu ka may ñu ko kuy ut te jaaroo ci yoon doo ko am kuy ut nag jaar ci yoon ñu jox la te bu ñu la joxee yemal ci li ñu la jox bu jël lópa loola. yow dafa mel ni ñiy dénoncé tey jii ñoom ngay joxoñ baaraam tuuma. ma ne. Uh-huh. ma ne. Uh-huh. Euh, man bokkuma 2020. man ne ci daaw yëpp yoo fekk xam naa kër yi na. dëgg la. dama ne parce ma lay woo ko xamal ma wax dama ne. Mm-hmm. gaal gii dañ ko def benn gaal. ba mm-hmm. tamit dafa am ay kii. gaa Sénégal nag ci li mu moom ci euh, deux mille euh, douze mille maa yi mhm. ak li nga xam ne mooy six euh, douze mille maa ak six mille maa yi mhm. ci na nga nekk Sénégal ko nekk Sénégal waroo am kayit dégg nga wax waaw dégg naa la mais dama bëggoon boo amee kayit ne Sénégal nga nañu xool la tax nga nekk Sénégal ba jël kayit ak li nga la koy nañ la ko joxe. Mhm. mais dama doon ne parce boo xëyee da nga Europe war nga dans les régions et de régions méditerranéennes et de tous les postes de fii. Mhm. am capital def technique am ah, visite technique ñu teg ba nga dem trésor tey bu ñu la ko mayee ñu door am licence soo amee licence nga am lu tax wax ji bari am mara lu tax wax ji bari kenn embarqué wul kenn ndax wax ji dafa bari loo wax li bàyyi nii wax pàcc yëpp. waaw foo foo ko ne boo ñu wax ko dañuy toog ci tey ko. ku nekk jël ko war ak yelleef ngay citoyen am sañ ko li amul nga ne ko am. affaire bi joxe xam ni muy joxe yemale ko joxe ko. foogoo ne coow lii ngir mu jeex euh, ñu publier li nga xam ne moom la acteurs yi bëgg maanaam euh, mooy euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo yor licence yooyu ndax am nañu ay kayit yu normal ou pas foogoo ne bu ñu publier liste bi coow li yëpp dina fay. waaw bu organisation non gouvernementale organisation PES. Mhm. bu demandé licence jotu ko. te ministre yi koy jox moo ko war a jox. fan lañ koy teg ci ñu ko teg ci biir bañ toogaay ba fa mu toog. Mhm. te xam ne mooy état. Mhm. ñu ko fekk <coughs> chaque fois nga taal sa télé dégg ñuy dóor ay bal di xeex yaa tooñuloo bu ñu laa wax nañ dem ba ca taabal ja dégg wax ji wax de. dégg naa la monsieur Thioune. damay digle léegi a nekk léegi na taabal mais fii kuy xuloo maa la gën a ma ñu bokk ak parti PSNT bu paree xuloo naa ñaar fukki ak juróom ci géej gi ak li ci kaw géej gi donc damay wax lu leer. Mhm. wax ko yàq defaru ko. yaa ngi dégg mën na yàq lu bari. Mhm. est-ce que est-ce que est-ce que wax ñëpp am nañu fi taxaw ñu gën a kayit ñu tontu ca la est-ce que ñuy joxoñ joxoñu leen est-ce que ñuy joxoñ nga loolu ba ngi ci biir est-ce comme guerre yaa ngi nii taxaw bu kenn laal nañ ko sol wax leneen loo xam dafa am euh, tey jii ndax navire chinois yooyu ñoo ngi fi navire chinois japonais ak yu tubaab yëpp a ngi ci géej gi ban moo walaabal nañ dem taabal bi génn kayit yi mais tey jii kuy génn kayit yi du état euh, muy ministre de la pêche te ñu ko koy laaj ci tali état du génn kayit ci tali état ah. ba ministère dafa am commission mu am commission consultative de pêche maritime yaa ngi dégg. Mhm. pour ñu nekk da ngay liggéey jox sa morom mu doon def li ci def waaye dañu dem da nga di joxe rek di joxe doo joxe licence noonu. kon bu ma ndax quota yi maye ko wala mayewu ko. donc bu ma la wax eh waaw waaw. boo laa joxe da ngay xam sax yow loo am si ña ñaata la. Mhm. am na tey jii wax ji bari jii yéen yoo xam ne ñu ngi koy dugal ci dëkk bi nii. Mhm. di ko teeral mais bu ma la ne pêche industrielle yaa may dégg ñu ñëpp. dama ne quatre-vingt-quinze pour cent yi amuñu licence poissonnier crevette la que ñuy yënd ci jën a bari. ah waaw pour ngay waxal maa ko wax. waa waa tey jii kan mooy joxe licence yi. mais ministère la mooy joxe licence. mais dégg naa licence jot ko moo jafe ci boppam. déglu baax nag déglu baax mooy dana dama ne waaw suñu demoon port di jàpp di nga gis dafa mais loolu yëpp ku koy organiser mais loolu yëpp ku koy organiser. waaw ku koy du ministre bi ne ñun wax ji mu ngi jóge ci ñun. mu ngi dem 16 ans xaw jàkkaarloo. nañ dem toog penc ma. d'accord kon daal bu ma la déggee ngay wax muy yéen acteurs yi muy tutelle bi ku ci nekk am na part de ah, responsabilité. xam nga man dama ñambaas ay wax di ko yokk wala ma ñaras ay lox. Mhm. wax dama koy wombaat teg ko ci biir am jàmm lem ko bokk ko bu teg foofu laa tollu temps yi notable la. ñu del ñu taxaw tuuti ci licence de pêche yi dégg naa euh, joxe ko dafa jafe wala sax am ko dafa jafe. di leen dégg ma ne. Hmm. ministre bi bu laa joxee licence. tutelle hmm. war naa daje. condition bi pêcheur artisan yaa ngi ci waa industrie yaa ngi ci mhm. waa recette ñu ngi ci te mhm. balaa joxe licence dañu xam ne est ce que mën nañu la jox wala duñu la ko jox est ce que tey këyit na jaar na yoon est ce que ba yi nañ ko agden naan jaar trésor yooyu yëpp est bi ci technique nga am mhm. yooyu yëpp dañ koy waxtaane bi ci dese ñu ne boo laa wax te bizarre est ce que yow li ngay laaj jën boobu ko lu bari nii mais dama ne licence euh, beneen kaar amatul Sénégal dafa daal ceeb yaa ngi laaj ci ah, boor bi. tey pêche artisanale euh, nan la tëree ci mim réew yan jafe-jafe euh, ngeen ciy jànkonteel. jafe-jafe yi bari na yi yàlla daf ñu ko teg muy coppiteg jamono changement climatique bii ci nappin bi ñuy napp ku mu neex nga napp bu la neex nga nappe amul noppal amul tërin ku nekk nga xaawee. te ku nekk li nga xam ne yaa moom géej gi te kenn ku ci jooy rek ab dogal koo gis mu jooy ci dogal rek am na ko naqari waaye boo nekkaan déet yaa ngi yàq mu ne faalewu ma la. ah kon da jàpp ne daal pêcheurs yi ñoom ñooy yàq. nappkat yi ñoom ñooy yàq ñëpp yàq industrie artisanat ñoom ñëpp tous industrie nañ mais pêcheurs artisanat ñoo yor à la tête des CLPA comme des coordinateurs pour la réhabilitation des des des stocks de pêche. Mm-hmm. revaloriser pêche bi encore application réglementation de la pêche co-surveillance de la pêche kan moo def ginnaaw. mais tey jii euh, ñoo ngi sàkku mu am audit ci secteur de la pêche ndax yow ànd nga ci. kan mooy auditer. ah loolu yow laa koy laajte. merci commission nationale consultative de la mooy kuréel gi ñu teg ci biir yoonal ñu am ca sañ-sañ bokk ca waxee. Mhm. est-ce que ñuy joxe ku am ko fal mu nekk fa na nga nekk boo demee nañ ko def audit waxee ko commission am. kenn du capté. waxi télé bi réeral kay kenn du ko capté yow sa presse bi ngay wax ni sax kenn du ko capté xanaa ñuy ko bokk dem toogaat ca toogaat bi dama ne nañ dem penc ma nga ñaan commission nationale consultative bi toogaat foofa ku nekk waxee sa wàccuwaay ak li fa indi. tey ñu naan suñuy wax amul benn yoon jën. jën yi manqué na maanaam suñu. géej gi amatul <laughs> benn non seulement jën yi manqué na. mais mhm. géej gi jeex na. géej gi jeex na. lu jeexal géej gi ndax dafa am ay conditions yi nga xam ne euh, dafa daje tax ba suñu jën yi daw. exploitation bi mhm. mhm. ci capacité bi mu ngi fi ci exploitation espèce ñoo dem ba yàgg yemamaay bii yo kanape la bii capita changement climatique yu ngeen di wax géej gi dafa amaat acidification xorom bi gën a yokk montée des eaux bi écosystème bi am dérapage Sénégal nekk ci exploration pétrole bu ngeen di dóor écosystème bi navigation bi nga gis muy migration espèce yi changé yoon dëgg bu gën a jege day sori te nag ni ngeen xoolaat bu baax dafa euh, xool euh, la fédération du nord fële ca Gallas da ngay see ci euh, du garab gaa ngi seen dugg ci géej gi baa ngi yéeg baa hmm. ngi yokku acide baa ngi bëri jën baa ngay taxaw di dem ba xam ne jigéen jën yëpp ay góor la ñuy doon kenn dudul jur euh, changement climatique euh, phénomène naturel la waaye lii nga xam ne mooy pétrole bi ak yeneen yi nga wax kan ngeen ci joxoñ baaraam tuuma xeena si man maay cuun baay xaal yi damay tax ñu baaraam waa pêche artisanat ak PNP laa joxoñ baaraam ah. ñu joxoñ ñeeg ne état du Sénégal dina toog ma joxoñ ko baaraam léegi man maay wax ne ñoom ñëpp delluwaat ca pénc kuréel ya fa nekkoon ña fa nekkoon ba wax ji génn ci biti kenn toogal ñu fa ñooy lan lañu ko toogalee woon. d'accord lan lañ fa gis ba ñu gis ko ci biti dama ñu ko gis ci biir. monsieur Thioune parce que tey jii attends. Ah. Mm-hmm. tey jii képp ku ci ñun kuy wax am nga koy dogal commission. Mm-hmm. bon lu fa ñemamaay moom la luñ fa def lu dul moom moom la. su fekkee ne def nañ loo xam ne ko dénoncé nañ delloo ci ta buum te mbooy ko dem fañ koy ñu waxaat ko fa teg fa waaye nag ku mu wax ñuy wax ku nekk ku nekkul position bu yàgg dañu xam kan kan la. Mamadou euh, Diop Thioune bu Green Marine ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. may fàttali ne yow yaay coordonnateur Green Marine Africa et euh, porte-parole euh, du conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal. la pêche artisanale au Sénégal.